sox nuyu naa la. waaw jàmbaar ñu ngi lay fay. waaye sant bu baax baay. ndam neex na de. non sant yàlla rek. sox mi ma gis arène nationale. dimanche bee weesu ak sox mi ma gis duñ benn dafa kilig. waaw noonu la. parce que buñ nekkee si métier bi dañuy wone ni si métier bi lañ nekk. mais après su jeexee. dañuy ñëw toog rek la am bu amee ñu seeraan suñuy nawle. soq coof la. waaw mais ban coof. ban coof yooyu gars yi koy wax rek fu mu toll jamono neexul taluma ay affaire coof ak yooyu barke Serigne Saliou leneen lu ma tal visé loolu noonu. ci làmb daan nga Gamou Gueye keroog ak ni nga ko daanee actuellement promoteurs yi ñu ngi lay démarché yan combat lañ waa ñu ngi démarché rek ñu ngi dox rek. ñaar ñu lay. waaw. Modou Anta bu ak Zos. waaw ñoom ñaar la ñuy wax de fu mu toll nii Gasson moo ko bëgg pour journée Balla Gaye ak Bombardier pour dugal ñu si ñoom ñaar ñëpp ay champion lañ. sumay grand lañ dama doon rêvé pour bëreeg ñoom kon yàlla na sotteeg jàmm rek. ñaar moom xam naa ne ku ci pare yow pare nga. non incha allah rabi bañu ma ci kenn ndax def nañ ci làmb loo xam defu ma ñoom ñaar ñëpp ku ci nangu rek pare naa pour bëreeg moom. ragaluma ci kenn. bàyyi ma ci xel kenn barke sëriñ. màgget wuyu loolu. man mafia bi laa àndal. da jël ñaar yëpp ñaar ñaar yëpp nga. dara sëñ Touba gars yi ma a pare sax. billaay wallaay gars yi ñoo ma gën a pare. amul problème man xale laa. dama am fu ma bëgg a yegg si làmb. te pour ma yegg foofu foog ma bëre ak ñoom. ndax ay champion lañ daf nañ lu nekk si làmb. nañ jël rek xaalis bi moom ñun ñëpp dañuy liggéey rek. te xaalis bi ngi fi di taxawaalu. nañ ko jël rek ñu liggéey. waaw. loolu laata moom bu naanee ko yóbbante bi. soq na nga jël avance. waaw waxal ma ko Zos no waxal ma ko na ko di yomb. amul benn problème.